liggéeyal liggéeyal ci Serigne Touba waaw kon laakaar naa ne lan lu ñu ci def ci ñaan rek mën na rafet njort ne lu rëy rëy yomb na suñu borom lool kon yaakaar naa lu rëy rëy rek dana dana ko am ni ñu ko bëggee kon ñëpp dellu dellu jógaat euh, jóg ci alxuraan te it du bu bu bu bu bu ko woon gannaawati mukk nii ñu ko tëralee waxtu wu dikkee rek bañ fàttali ko rek na ñëpp jóg. na ñëpp jóg euh, def ci seen euh, yeesal ci seen i yéene euh, gën ci wéral seen i pëstef gën cee yokk seen i itte jëf ci jëf joo xam ne jëf ju sëkk la ñi nga xam ne ñooy jàng ñu sellal njàng mi ñi nga xam ne itam jànguñu te nekk ca gox gox gox bu ñu mën a nekk ak fu ñu ko fay defee rek ña ca des nañu góorgóorlu ñoom itam wut ay xéewal seen kem kàttan yóbbu fa ñi nga xam ne ñooy liggéey liggéey boobu mu jàngal Alxuraan ci bis boobu ñu jariñoo ko loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ne moo moo moo gën a gaaw ci lépp lu nuy lu bëgg suñu bopp biir ak biti teegal rek loolu moo moo ci gën a gaaw kon nag ñu nañ na ko ñëpp xamee noonu nañ ñëpp jóge noonu ñu defee ko euh, suñu kem kàttan euh, te itam muy loo xam ne dañ koy fas di ci kanam lépp ku ci ne feeg feeg noo ngi dund rek ku ci ne na ko bàyyi xel bu bu agsee rek mu def ci itam yëpp loolu jërë ngeen jëf loolu rek la xëy na liñ ci bëgg a wax ëpp na loolu waaye yaakaar naa ne mën naa jàpp ci loolu rek ndax bu ñu ko toppee buñ fanaan noonu itam ngëneel alxuraan ngëneel moom moom mënuñu ko buñ fanaan noonu it du tuuti la ciy doon kon nag waa na góorgóorlu rek na ñëpp jóg rek eh, def ko mu yitte joo xam ne waxtu aseetee rek bu ko kenn bu kenn soññu kenn cheikh Mouhamadul Mountakha ci kàddu yooyu nga xam ne jottali na ko ci turu sëñ Mouhamad Lamine yàlla na ko yàgg jot jottali ci barki Serigne Touba. kon ni ñu ko déggee rek kàddu yi mat na sëkk muy altine jii di ñëw di ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi noonu ko sëriñ bi diglee bëgg ñëpp maase xëy maase ci jàngum alxuraan tuubal suñu borom toroxlu ko jéggalu ko ñaan suñu borom mu def jàmm ci réew mi waaye defal jàmm mboolem jullit yi fu ñu mën di ne ci àddina bi. Eh, rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci nekk ci ay xat-xat suñu borom xet li leen te def nawet bi it mi nawetub jàmm bu teel te barkeel loolu la sëriñ bi jotal bëgg ñu maase ci eh, sàkku yit ci mbooleem ñi nga xam ne gox boo xam ne ay nit nekk na fa eh, mu penc bu dee mbaar sax nekk na fa nañ maase génn ca ñay jàng di jàng ña nga xam ne ñoo ne ca wet ga it lépp loo xam ne mën nañ ko ci ay bernde ak i xéewal ñu waaj ko yóbbu ko ca barab yooyu ànd bokkook ñu nekk ca liggéey ba biir dëkk bi incha allah taala fas nañ ko yéenee defee ci jumaa ju mag ji des danañ ko ci defee naka noonu it ci daarul xuduus ci njiital sëriñ ahmadul muxtaar euh, ma nga xam ne mooy kilifa barab ba waaye ci taxawaayu sëriñ basiiru silla ak sëriñ boole mbay ak maam Cheikh Ndiaye ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxawu daara te di leen ci soññi sëriñ mi ngi leen ci soññi baax a baax naka noonu dinañ ko amale fii ci daarul minan ci njiital sëriñ muntaxa mi toog ak ci taxawaayu sëriñ muntaxa moom sëñ maam Mor Pakal ak sëñ basiiru loo ak sëñ ñoom it ñu soññi daara yi baax a di ko amal ci pencum Serigne Souhaïbou ci njiital Serigne seex Say ma nga xam ne mooy kilifa ga ak ci ndigalam waaye ci njiital sëñ Mahmoudan Boussa ak sëñ Abdou Samad Silla ñuy soññ waa daara ya nekk bu baax a baax di ko amal ci guy mbind ci ndigal Serigne Cheikh Mati lay waaye ci eh, ak ci taxawaayu eh, Serigne Serigne Cheikh Baara Karim ak Serigne Moustapha Ñaaxar ma nga xam ne moo jiite daara yi nga xam ne ñoo nekk ca wet googa naka noonu dinañ ko amal ci forage su baylaat ci jàkkee Serigne Mahmoudan ja nekk foofa ci njiital Serigne Mbàkke moom sëriñ Mahmoudan ak ci taxawaayu xaadi jaxate ak daara yi nekk ca wet googa dinañ ko amal ca Gede ca jumaa ja ci njiital sëriñ Moxtaar Busa may kilifa ga ak sëriñ Moxtaar Busa mu ndaw ma nga xam ne moo jiite daara ya ci sura ci jàkkay sëriñ Abdul Xaadir ji mii ne jàkkay Baye Gueye danañ ko fa amal ci njiital sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xaadir ak ci taxawaayu sëriñ Fadilu Ndiaye moom sëriñ Mbàkke Ndiaye Gede ci sura ba tey ci sanc yi ci wetu yoonu Jolof yi danañ ko amal ci jumaay sëriñ Abdul Xaadir ja nekk foofa eh, ci kilifteenu sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xaadir waaye ci njiital seriñ ab lay Mbay ak Serigne Fallou Silla ak mboolem ña nga xam ne ñoo ànd ak moom ca liggéey ba ca jumaa ja danañ ko amal ci ndindi gu Serigne Fallilu ci ndigalal ci Serigne Abdul Fatah ma fa nekk nekkal fa Cheikh Mamadou Lamine ak ci taxawaayu Serigne Mbacke Diouf ma nga xam ne moo jiite daara ya ak Mansour Ndiaye ñoom ak daara ya nekk foofa yépp dinañ ko amal ci aaliya ca kër Serigne Fallou ga ci njiital Serigne Galas moom Serigne Baara ak ci taxawaayu maam Serigne ja ma nga xam ne moo fa jiite daara yi dinañ ko amal ci corniche ci jàkkay Serigne Cheikh moom Serigne Saalix ci ndigalal Serigne Cheikh waaye ci njiital Serigne Basiru Xelkoom ak daara ya nekk ca wet googa dinañ ko amalit ci foras ci jéemul ci yoon Daaru Muxti yi muy ci jàkkay Baye Ndiaye ci njiital Baye Ndiaye ak Mor ak daara yi nga xam ne ñoo nekk ca wet googa dinañ ko amalit ci kër Serigne Ñaan Diop ci njiital Serigne Moustapha Diop nga xam ne mooy xalifa ba ak Serigne Moustapha Diop nga xam ne moo jiite daara ya fa nekk dinañ ko amal ci kër Ñang ci njiital Serigne Seex Ñang euh, ak ci taxawaayu Abdoulahat Dia ma nga xam ne moo jiite daara yi ca foofa dinañ ko amal ci njenne ca jumaa ja ci njiital Serigne Seex jenn Alim ak ci njiital Serigne si la imaam tey jiite daara ya dinañ ko amal ci daarul man naan ci njiital sëriñ Mbàkke Daba Sarr ak ci taxawaayu Baay Sëriñ Touré ma nga xam ne moo jiite daaree ca foofa danañ ko amalit ci penc ma ca sexaw ga fi sëriñ Mbàkke doon teg xeer wa ci fan yi ci njiital sëriñ ci kilifteefu sëriñ Mbàkke Daba Sarr ba tey ak njiital sëriñ Touré ak sëriñ Mahmoudan Guèye ña nga xam ne ñoo jiite daara ya foofa dinañ ko amal ci ndaamaatu ci jumaay sëriñ Saalih jafa nekk ci njiital sëriñ Alhaaj Njaay imam ak mbooleem mbokki daara ya nekk foofa dinañ ko amal ci bustaanu aarifina ca barabu sëñ afiya busa ba ci njiital sëriñ yaxya busa ma fa nekk jiite di ilimaan ja jiite daara ya fa ne dinañ ko amal ci daaru yi tindoodi ci njiital sëriñ seex moom sëriñ addi sëriñ àlli yu mbakke euh, di ko amale ci daara seex moustapha jooje nga xam ne moo fa nekk ci njiital euh, sëriñ moodu mbakke ak sëriñ naa njaay ak mboolem daara yi nga xam ne ñoo nekk ca wet googa naka noonu dinañ ko amal ca tindoodi ba tey ci njiital sëriñ seex moom sëriñ àlli yu mbakke Eh, waaye ci taxawaayu sëriñ Alxaaji Njaay ak sëriñ Muxtaar Jéy sëriñ Alxaaji Njaay Banji ak sëriñ Muxtaar Jéy kon ñoo koy taxaw daara ya nekk foofa dinañ ko amal ci daarul xadim ci njiital sëriñ Fadilu Jumaada ak sëriñ Abdul Xaadir ma nga xam ne mooy imam ba tey jiite it daara ya nekk ca wet googa danañ ko amal ci Touba Sonatel ci jàkkay sëriñ Mam Mor Mbakke ci njiital seriñ Mam Mor Mbakke ak daara ya nekk ca foofa dinañ ko amal ci marché Mam Binta ci jumaay sëriñ seex moom sëriñ Muntaxa mii ci njiital sëriñ Cheikh moom sëriñ Muntaxa ak daara ya nekk ca foofa dinañ ko amal ci xaaxira ci kër sëñ Modou Boussa ci njiital sëriñ Jili muy sëriñ Abdul Xaadir moom sëñ Modou Boussa ak sëriñ Xaadim Ndiaye ak së ak euh, euh, sëriñ Ndiaye ak Saalihu géey ma jiite daara ya foofa dinañ ko amal ci al asar ci sëriñ Thierno Boussa Moulay ca Jumaaja ci njiital sëriñ Thierno Boussa ak sëriñ Talla Seck ma jiite daara ya dinañ ko amal ci Buqatul Mubarak ca kër sëriñ Touba gi nga xam ne moom la waa Afrique du Sud defar ci njiital maam Mokhtar Fall ak sëriñ Samba Niang ak mboolem daaira ya nekk ca wet googa kon nañ ci bokk taxaw bu baax a baax